samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h maanaam ñetti waxtu jàpp euh, ñenti waxtu. tey nag ñu dellu am mbégte daal di invité euh, Boubacar Seye bi nga xamante ni moo jiite euh, kuréel gi di Horizon Sans Frontières mu nekk kuréel goo xamante ni li ñu koy dégg. muy taxaw ci loo xamante ni tey ci àq la ak yelleefu askan wi la. rawatina tamit euh, ñi nga xamante ni tey ñooy dund bitim réew moo xam ay sénégalais lañ wala yeneen euh, nationalité euh, danañu waxtaan ci ponk yu baree baree bari fi ñuy njëkk xam naa danañu wax ci lu soxal mbiru Lamine Diack mi nga xamante ni ñoo ngi koy àtte ci diwaanu France. dana ñu wax tamit ci li nga xamante ni maanaam mooy actualité am na tamit ay euh, doomu réewum Sénégal yoo xamante ni ñoo ngi bloqué euh, diggante euh, Mauritanie ak Maroc loolu tamit danañu si daal di waxtaan Boubacar Seye Rewmi FM a ngi lay nuyu. Abdou Khadre maa ngi lay ziar di nuyu waa Rewmi FM yëpp di nuyu waa Sénégal di nuyu aussi ñi nga xam ni ñoo nekk ci diaspora bi. di ñu déglu ci réew ci Rewmi FM. Euh, Boubacar euh, Seye euh, yow nga jiite kuréel gi di Horizon Sans Frontières li nga xamante ni tey mooy ATEP Lamine jaag bi Lamine jaag nag mu nekk personnalité boo xamante ni tey xam nañ ko partout dans le monde muy ab sénégalais jiite woon nag kuréel gu mag ji di I2AF moom ay at yu bare bari ci ginnaaw ñoo ngi ko tuumaal mbirum guerre mbirum blanchiment d'argent moom ak euh, doomam Massata jàkk ak ñeneen ñoo xamante ni tuumaal nañ leen euh, bala ñuy ñëw ci àtte euh, bi mm-hmm. procès bi nga xamante ni tey amal nañ ko ba parquet bi sax wax mm-hmm. li mu sàkk pour ñu tëj ko ko mm-hmm. yow jëm ni Lamine Diack jiite IAAF bi nga déggee presse national bi presse étrangère bi di wax ne dañu koy tudd ci mbirum guerre Euh, lan moo nekkoon yow sa yéeg-yéeg ci mbir mi ak sa jàngat. waaw xam nga man hmm, le procès Lamine Diack ñun suñu position euh, dafa nekk une position de principe boo xam ne du mus a changé euh, Lamine Diack est une fierté africaine waxatuma sax Sénégal. Mm-hmm. am na loo xam ni yaa ma ko gën a xam. Lamine Diack mag la Lamine Diack dafa feebar nekk doomu réewu Sénégal ñu tuumaal ko te ni ko tuumaal kenn ci ñoom setu ci euh, damay wax avant tout mu leer dans l'esprit ñi ñuy déglu la France n'est pas habilitée à juger Lamine Diack loolu loolu faute juridique grave la d'abord euh, France nekkal capitalu I2AF kon suñ ko doon juger du France moo koy jugé moo tax tey. Euh, ñun la question juge et partie la. loolu moom gis nga euh, le dossier Lamine Diack dafa wane tey euh, beaucoup de failles dafa wax dama wax ni y a une capitulation des juridictions africaines sur le dossier Lamine Diack parce que ñoom ñoo waroon jóg xam nga tey lan mooy question bi pourquoi toujours quand il s'agit ay ay ay officiels africain c'est la France qui se déclare compétence universelle pour mën a juger mu africain yi c'est la question que ñun africain war nañu poser suñu bopp tey pourquoi toujours rek su dee ay doomu africain rek France mooy jóg déclarer boppam compétence officielle pour juger ay doomu jàmbur ay doomu Afrique yoo xam ne ils sont présumés coupables loolu nañ ko xoolaat parce que tey damay wax Ka Lamine Diack damay wax c'est un complot c'est le plus grand complot du siècle contre doomu Afrique contre le continent africain parce que tey bépp doomu Afrique boo xam ni tey wane nga ay résultats sur le plan international dinañ fexe ba dammate la dinañ fexe ba yàqal la moo tax complot bi procès bi buñ ko gisee uniquement euh, le procès Lamine Diack c'est le procès des leaders africains bu ñu bàyyee bi mu jàll benn leader africain dootu fi diriger euh, euh, organisme institution internationale parce que ñoom lool moo leen tax a jóg notoriété africain mooy seen problème dañ koy dam xam nga ñun li ñuy wax xam nañ ko Europe lañ dëkk comme ñoom moo tax bëggoon nañ ñu déglu ñu xel euh, dossier Lamine Diack bi au-delà de toutes ces considérations d'ordre politique yi ñuy wax Sénégal man duma ci dugg parce que fekkuma fi xaw ma ci dara mais dama jàpp ni Lamine Diack mag la Lamine Diack doomu Afrique la Lamine Diack c'est une fierté africaine li mu daf ci i af kenn ci ñoom daf ko la preuve en am na ñu ñu jàppalee mais dans le sac mais pourquoi dafuñu un traitement d'égale dignité nit ñu sonnalee Lamine Diack sonnaloo nañ ko nañeen tey dama lay jox un exemple pourquoi le parquet financier de Paris pourquoi il s'est pas autosaisi sur le cas sur le cas Platini pourquoi pourquoi pourquoi pourquoi pourquoi pourquoi pourquoi ci ci Lamine Diack rek lañ koy def yooyu yëpp nañ ko xoolaat tey c'est pas le c'est pas le procès Lamine Diack c'est le procès de toute l'Afrique d'accord tey toute Afrique moo war a jóg moo tax nous nous demandons un soutien transnational parce que lii su jàllee benn doomu Afrique parce que il s'agit tout simplement de crédibiliser de de discrédibiliser hein yàq deru euh, les classiques africains yi nga xam ni tey yaa xam ci wàllu sport yaa xam ci wàllu boo mënti nekk rek pour wane ni africain yi de gis nga avocat bi li mu yàq Lamine Diack. loolu c'est mais mais euh, Boubacar Seye euh, français yi tey su doon dañu bëgg a tuutal africain kon. Euh, lan moo tax ñu koy jox institution bu toll noonu I2A. non non mais français non mais justement français lu français yi joxuñu ko français yi ñu loolu moo tax ma ni la français dañoo moom I2AF c' est une institution internationale moo tax ma ni la tey la question bi ñu war a poser tey mooy pourquoi quand il s'agit bu ñuy d' Afrique rek France mooy mooy déclaré wu compétence universelle. mais apport France aussi joué aussi. nee naa la amul droit. la France juridiquement mais est-ce que apport France joué wul ci. waaw mais non ban apport France mais France France su sañoon ay doomam ñooy ñooy ñooy jugé la apport France doonul ci dërëm la preuve en ñu ngi koy takkal tey di takkal di takkal deru Afrique donc loolu laa wax ni africains yi waruñu ko d'accord parce que tey xam nga lan moo am euh, une capitulation des juridictions africaines dëkk bu mel ni Sénégal nag moo ko waroon njëkk a taxaw moo tax vraiment yaa y a une faiblesse de la diplomatie sénégalaise du ministère de la justice sur ce dossier tey dañu waroon créer. un incident diplomatique entre la France et le Sénégal parce que sinon rek suba dinañ fi toroxalaat ne ne ñun xam nañ lu ñuy wax nu parlons en connaissance de cause tey Sénégal ñoo waroon ñu jóg bañ ñu toroxal Lamine Diack te ñu ngi koy toroxal te ñun nag duñ ko d'accord dinañu wax ba àddina bi yëpp dégguñu projet bi duñ ko d'accord c'est un procès qui n'est pas équitable. d'accord d'accord mais euh, professeur euh, Boubacar Seye euh, Horizon sans frontières. Euh, si sa biir wax wax nga ne. Euh, wax nga ba tudd euh, Platini. Euh, ci loo xamante ni moom tudd nañ ko ci mbiru guerre. tey Platini def mbuxum def guerre ñu ñu ñu fexe ba bàyyi ko. firiwul ne Lamine Diack maanaam def man du man kese bokkuma ci moo ci moo moom moo si gën mais est-ce que tey réellement yow Boubacar Seye li nga xam ne africains yi waroon nañ ko xeex ci procès Lamine Diack bi mooy fexe ba procès équitable maanaam fexe ba Lamine Diack firnde kane li ñu koy tuumaal defu ci dara mais euh, bu ngeen ko bëggee gisee kese ne dañuy xeex africains yi est-ce que loolu du nekkul loo xamante ni lu teel lay doon. gis nga bu ñu demee ba mais wax nga ko léegi. Platini <laughs> jàpp nañ ko làmmee dans le sac mais dañ ko régler diplomatiquement nëbb affaire bi mais Lamine Diack ñu ngi koy toroxal parce que faiblesse su africain la kaay ma wax la ni France attaqué tey Lamine Diack bu ko toroxal ñemewuñ ko def benn dirigeant arabe suñ ko defoon c'est le monde arabe moo jóg tey ñun la ñu yëpp li ma la wax du dañ. du demee Lamine Diack deful dara. non mais man déggoo li ma la wax nee naa la. Mhm. ñëpp ñi diriger les institutions internationales. amul kenn ku ci set ak 90 pour cent limal ma ci kenn ñoom ñëpp ñoom ñoom ñëpp dafa ay mbuxum mbuxum man mënuma takkal Lamine Diack man pour man ce procès là c' est un complot parce que Lamine Diack nee la c' un complot contre les officiels et élites africaines suñu daful nànk rek. suñu mais moo def moom. man ma ko man aw ma ci jàpp ma ko man du ma takkal Lamine Diack parce que ñoom ñoo ko gën a takk xanaa déggoo li ma la wax ñoom ñii di yiñ Lamine Diack ñoo gën a takk lii ñu def Lamine Diack nii ñemewuñ koo def benn pays arabe suñ ko defoon seen ñemewuñ sax arab yi ñun la ñu nax ñun la ñu kii te France rek mooy def loolu moo tax Sénégal waroon jóg tey wane fulla Sénégal moo waroon jóg tey euh, bañ procès bi depuis le début mais seetaan dafa am. Sénégalais ou africain yi. mais mais mais balaa Afrique di def Sénégal jël euh, euh, créer une union sacrée autour de Lamine Diack mais Sénégal dafa ko. waaw mais dafa mel ni tamit procès Lamine jaag bi dafa mel ni soo xoolee Sénégal daf ko seetaan boo xoolee Sénégal même presse bi. boo koy suivre tey da ngay jàpp ne jàppale wu ñu Lamine Diack. Mhm. Euh, ñi nga xamante ne ñu yëngu ci mbirum sport jàppale wu ñu. Mhm. Euh, Lamine Diack boo xoolee tamit suñu gouvernant yi tamit da ngay sentir ne jàppale wu ñu Lamine Diack loolu yow lan nga jàpp ne moo ko waral. ah man de wax dëgg yàlla loolu moom je crois que le constat est général ñëpp gis nañ ko démb surtout sax ni presse bi titré démb. Mhm. ah man nag man bokkuma ci loolu. man loolu man rafetewuma ko lan nga jàpp moo ko waral. Ah, ban xaw ma parce que comme li may wax rek am na yu bëri yoo xam ni man fekkuma fi ñun ci nguur gi lañ fi ñëw 2013 lañ fi ñëw. donc presse bi li ngay lire yow. waaw mais man li may lire déggoo li may wax nee naa la man ànduma ci. man nous nous samoon demandé benn union sacrée hein autour de Lamine Diack mais mu commencé fii ci Sénégal parce que Lamine Diack ñun ñoo ko war a défendre kenn du ñu défendre Lamine Diack Lamine Diack Sénégal moo ko war a défendre kon c'est la presse bi nga xam ni tey euh, tey. ñoom pouvoir la damay wax la presse est un est pouvoir donc tey presse boobu tey moo waroon ñun ñoom ñu ñu na jàppale la mais ma pas ñuy sukkandiku ci ce que la presse occidentale la presse française parce que du ma wax occidentale. Mhm. la presse française li muy bind ci Lamine Diack ñu def ci attention parce que déjà c'est une presse partisane. Mhm. donc tey jii su lépp jaaroon yoon Lamine Diack du France moo koy téye je répète encore une fois c'est une faute juridique. boo xam ni Sénégal mënoon ñu ci sukkandiku pour bañ ñu téye Lamine Diack kon tey le traitement du dossier Lamine Diack ni ma ko gisee Sénégal du man lu ma rafetlu parce que Lamine Diack Platini bi mu amee problème ñëpp ñëpp ànd ak moom jàppale ko presse bi gën ko jàppale. ku wax Platini ku laal Platini ñu ne dañuy bañ mu mu mu mu mu mu mu mu diriger bi. donc ñu jàppale ko vraiment jàppale ko taxawu ko. habillé ko voilà taxawu ko donc daal di daal di. pratiquement li ñu ko jiiñ yëpp la ñu jël teg fale ba tey Platini il va à ses occupations te moom dañ ko jàpp la main dans le sac donc tey jii pourquoi tey Lamine Diack la presse sénégalaise Lamine Diack nekk une une waxuma la sax Sénégal mais ci biir Afrique mu nekk euh, euh, doomu Afrique boo xam ni euh, tiitër la alors euh, ñun ñu ko ñu koy bañ a taxaw man loolu rafet lu ma ko. wax naa ko te te euh, taxawaayam ci Sénégal ñëpp ñoo ko rafetlu woon ci ay euh, conseillers am wala ci personnalité bi nga xamante ni tey doon na ko am en tant que doomu Afrique mais tamit Boubacar Seye ki nga xamante ni tey moom mooy njiitu réew mi ak ñi mu àndal. Mm-hmm. peut-être am na loo xamante ni tey mbiru politique la. Mm-hmm. comme ni nga ko waxee sànq. Mm-hmm. mais. Lamine Diack euh, ñu bari dañ doon tuumaal. Mhm. Macky Sall di tuumaal ñi mu doon àndal ak parti socialiste ñoom xalifa Sall ak ñooñu. Mhm. kane opposition boobu ak euh, ay mouvement association kane Lamine Diack moo leen doon jox xaalis. Mhm. ngir Karim Wade ñàkk élection législative yu 2009 ya ak Abdoulaye Wade ñàkk élection 2012 yi. ci xibaar kane Lamine Diack moo leen doon financé mais loolu tey. su kee su dee presse bi ma ngi koy véhiculer moo xam dëgg la moo xam du dëgg. Mm. est-ce que du tiital nguur gi kane bu ñu jógee taxawu jàppale Lamine Diack rek ñu ne ah kon li ñu doon wax kat kane Lamine Diack moo leen doon financé dëgg la ndax dañu gis ne ak noppi daf ci am ci mm. parti socialist mm. te fa la bokkoon ak noppi daf ci am ci ñi nga xamante ni tey ñoo yore nguur gi tey yow lan moo ciy sa xalaat lan moo ci sa jàngat ci loolu. waaw noppi am na seetaan am na. mais gis nga euh, au delà de xam nga man dossier yam Lamine Diack 2015 euh, laa ci commencé bind pour un traitement ñu dignité laa ci njëkk a bind bi ma ko bindee am na sax ñu ma woo ni ma non defal attention xamoo ci dara bon nit ñi am na fu ñu la teg bu ci dugg c'est politique man leen man waxuma politique c'est une position de principe ñu ko relancé waatee tamit gis nga am na ñu bëri ñu may woo comme li nga wax nag ñu ci bëri tamit ci nguur sax nguur gi fi nekkoon la di ma woo naan ma woy Boubacar lii lii xam nga rek euh, li nga wax dëgg la mais xam nga ni leen li ngeen wax yëpp dëgg la yéen ma ko gën a xam man nag du ma dugg sur ces considérations politiques xaw ma ci dara parce que du ma politicien euh, dama jàpp ni rek lamin Dia mag la. te kenn du ko toroxal. jili du duma ci dugg. xam nga li tax. xaw ma ci dara man li ma jàpp tey dama jàpp ne même su doon xeex Ablaye Wade comme ni ñu ko waxee. man gëm naa ni. gëm naa ni man xaw ma Ablaye Wade. Mhm. mais li ma Ablaye Wade c'est un patrimoine national. Mm-hmm. Ablaye Wade c'est une fierté africaine. Mm-hmm. man gëm naa ni Ablaye Wade tey. Mm-hmm. li Lamine Diack nekkee neex ko man gëm naa loolu man Boubacar Seye. moo tax man yi euh, quand les gens m'interpellent dama leen di wax li ngeen di wax yépp yéen a ko gën a xam parce que man wax naa ko 2013 gii laa fi ñëw. kon lu ci bëri man xaw ma ko su ma musaani ñëw Sénégal 15 jours laa fi am ba ma amee 22 ans laa fi génn. kon je ne maîtrise pas l'environnement politique. mais dama jàpp ni jii ñun ay jullit lañu. te suñu mbokk jullit bu ñuy wootee man nag dama bëgg a nekk jullit mooy lan waxuma sax jullit waaye doomu aadama ça c'est c'est la position de principe de horizon sans frontière doomu aadama bu ñu bëgg a bund xatal wala ñu bugg la tuuteel ñun ñu taxawu la loolu la ñuy def ni sur le cas Lamine Diop loolu mooy sama position xaw ma ci leneen mais dama jàpp ni suñu bàyyi woon les considérations politiques hein dans ce dossier la euh, jël euh, l'aspect humain hein doomu adama je crois que kon ñun ñëpp tey war nañu mën a taxaw Lamine Diop ba kenn ko toroxal jërëjëf euh, Boubacar Seye euh, yow yaa jiite Horizon Sans Frontières mbokk yi tey euh, moom la ñu invité ci seen émission pencum réew mi li nga xamante ni nag comme ni mu ko waxee sànq benn loo xam lu ñëpp gisandoo la ci Sénégal. Mm-hmm. kan ne Lamine mm-hmm. jàppale gi nga xamante ni tey Sénégal waroon na ko ko jàppale. Mm-hmm. ñëpp dañu dañu nemmeeku ne. des na. Mhm. te presse Sénégal aussi kenn jiitu leen jiituwu leen ci gis nañu tamit ne dafa mel ni. Mhm. Euh, règlement de kon daf ci am sunu om politique yi tamit gis nañ ne gis nañ li ñu nemmeeku te seetlu ko. Mhm. te ñëpp teg si ba tamit mooy taxawu gi ñu waroon a taxawu Lamine Diack dafa des te pour pourtant mënoon nañ ko taxawu en tant que doomu euh, africain. léegi euh, Boubacar Seye Lamine Diack. Mm-hmm. juge bi li mu wax maanaam parquet ñoom procureur dafa wax ne nañ ko tëj euh, ñeenti ati kaso. Mm-hmm. Euh, Massata Diack euh, lu toll si juróomi ati kaso alamaan leen ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay milliards. Mm-hmm. démb dama déglu dama lire ci presse bi. benn avocat Lamine Diack ñu ne moom moo wax juge bi na ko Lamine Diack bu ngeen ko tëjee loolu. mooy accélération li des ci dundam. yow kàddu yooyu peut-être déglu nga ko walla lire nga ko ci presse bi. lan la la def. loolu wax naa ko keroog sax ma ni tey tëj Lamine Diack mooy mettre en péril sa vie parce que mag la ku feebar gisoo il a été affaibli tubaab bi dañ ko bëgg a toroxal gisoo dañ ko dañ ko dañ ko assigné en résidence euh, pendant quatre ans ñu doo ko def procès bi doo ko commencé lépp pour na sëxal xelam boo xoolee mu ngi am ay trouble de mémoire ñun d'accord ci loolu. Mm-hmm. li juge bi wax. Euh, Euh, xëy na man du ma d'accord sax ba léegi rek man tiñal bi duma ko d'accord Lamine Diack par A ou B si on lit le droit dafa war a ñibbi si Sénégal man maa la wax lii. ba tax na mhm. euh, li may wax rek euh, ci taxaw bi laay delluwaat parce que suñ ko jugé si la si le verdict tombe su amee condamnation. day gën a yàggal ce projet c'est un projet suñ deful naan kiris parce que après il faut faire appel yooyu yëpp da koy gën a sonnal parce que ça euh, son séjour forcé day gën a day gën a yàgg ba pare dafa feebar Lamine jaar mérité na une retraite paisible auprès des siens au Sénégal je crois que loolu ça doit être le défi bi nga xam ni le gouvernement du Sénégal moom la war a teg boppam dans ce dossier là moo tax je demande au ministre de la justice mu xoolaat boppam parce que le dossier Lamine Diack va créer benn jurisprudence très dangereuse pour les officiels africains nañ ci bàyyi xel Sénégal mu rectifié wu ñu jóg taxaw Lamine Diack rapidement ñu yónni benn rapidement ñu créer un incident diplomatique entre la France et le Sénégal pour ñu bàyyi ko parce que su Sénégal protesté wu rek dañ koy toroxal nous allons vers une condamnation. d'accord waaw léegi euh, suñu mujjantalu question ci mbiru Lamine Diack waaw mooy euh, yow euh, li ngay wax nii su ma la déggee mooy euh, say naqar ah. dafa paase sax mbiru Lamine Diack uh-huh. ndax mën nañu wax ne mbiru Lamine Diack uh-huh. wéy na ba pare si jiite institution ah. mais am na yeneen jeunes africains yoo xamante ni tey ëllëg am nañu ay ambition jiite ay institution yu mag a mag a mag ci ah. àdduna bi léegi lii ne ñu gis nii ci projet Lamine Diack bi te yow nee nga tey bu doon arabe yi du demee ne est-ce que comme du ñàkk fayda Euh, africain est-ce que sunu dirigeant africain du seen ñàkk fayda moo tax français yi ñoom di doxalee ak africain yi nu mu leen neexee. déggoo ñu ma la déggoo li ma la sànq la question que bépp doomu africain war a posé wu tey à travers émission bi ñun mooy li ma wax ni man ni li tax tey quand il s'agit ci ay doomu Afrique rek France daal di constitué wu euh, ni moom moo moom moo leen di jugé compétence universelle loolu nañ ko xoolaat. ba tax na tey waaw mais ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk c'est la faiblesse des dirigeants africains c'est la faiblesse des juridictions africaines aussi hmm. boo xoolee cas yi bëri nañ fii kon tey jii je crois que li ñu soxla tey des dirigeants à la hauteur des enjeux géopolitiques des dirigeants de rupture ba nga xam ni France du ñu yàpp hmm. parce que li lii xew nii mais mais Europe ñaata dëkk la France rek moo koy def hmm. Afrique da nga fay gis espagnol yi da nga fay gis anglais kon kon kon kon il tànk nag ñu wax ak France. Ah. il tànk nag France ñu yemal ko place am. d'accord mu bàyyi toroxal bi muy toroxal doomu nit nit ku ñuul. jërëjëf euh, Boubacar Seye euh, yow yaa jiite Horizon Sans Frontières euh, ba tey ñu daal di wax ci li nga xamante ni mooy mbirum woppi coronavirus Covid 19 bi tax na am na ay doomu réewum Sénégal yoo xamante ni bloqué wu nañ diggante Maroc ak ak Mauritanie je pense que information boobu yëngoo ko def nga ci ay déclaration mais dafa mel ni ba léegi ni état bu Sénégal ñoom yooyu ñu yàbbi ci mbiru moom wala jéemuñu ci dara yow mbir moomu ban information nga ci am. Euh, ci sénégalais yooyu nga xamante ni sonn nañ te ñu bloqué leen foofu. ba ba avant ngay ñëw nii ñi nekk Mauritanie am na ci kenn koo xam ne jëkk jëkkër ji chaque jour mu woo ma avant koor gi la ñu bloqué foofu di ñaan ñu ndimbal leen waa Maroc moom chaque jour mooy les 68 migrants. yi nga xam ne am ñu bloqué Mauritanie am ñu bloqué Maroc. fépp moom y' trent 32 sénégalais. am na ñeenti jigéen ci seen biir kenn ki sax dafa ëmb euh, foofu nag yaa urgence fépp sax am na urgence mais ba ni may mujjee waxante ak moom nee na ma suñu deful nànk moom xam naa ni tragédie dina fi am parce que ñun bañatuñ dara depuis mois de mars dem nañ ba yoretuñ dërëm waxuñu lu dul ñu delloo suñu Sénégal kon j'en profite si sa émission bi léegi la ma tax andiwuñ leen waaw xam naa des moyens parce que ñoom amuñu moyen non état bu Sénégal. waaw mais l' état l' état kenn waaw xëy na peut-être ñoom ñoo la mën a tontu ci loolu. mais ñun dañu jàpp ni. waaw mais dañu gis ne Sénégal jëlee na ay doomu réew si yeneen réew indi leen. non Sénégal jëliwul doomu réew ñun ñi dañoo fay loolu dinañ ko leeralaat parce que euh, Sénégal euh, ñi mu jëli sax fi mu teg avion sax mooy ñi nga xam ne dañoo yore seen xaay ñi dañuy dañuy jënd billet mais gis nga ni mu demee dañoo dem ba. Sénégal fay loolu. déedéet bii nit ñee koy fay. c'est que yenn yi politique la rek les déclarations yi ngay dégg ñu naan le président de la république rapatrie loolu c'est de la politique et puis c'est pas le président de la c'est l'état du Sénégal ba pare booy wax euh, na nga bàyyi ndiku ñi nga xam ne ñu ngi souffrir nga wax li am parce que tey euh, l'état du Sénégal ne rapatrie pas dégg li nga coow li sur les Air Sénégal mu ñëw teg billets yoo xam ni nit ñi mënuñu koo jënd loolu teguñu ko ci yoon. boo déggee l'état du Sénégal rapatrie da ngay foog ni l'état du Sénégal rek moo dem teg benn billet ni voilà benn avion ni ñëw leen déedéet da ngay jënd billet des billets qui coûtent plus de 1000 euros fu ñu ko teg ay billets aller ay billets simple gis nga coow li Italie gis nga coow li faneen am na ñoo am na ay doomu sénégalais yoo xam sax dem nañu ba ñoom si seeni fexe ñu wax ak ay compagnie à des à des pour jël ñi bloqué fii. Mhm. yóbbu leen wala ñi bloqué fële indi leen. ñaata ñoo ci ñëw ci man mais Sénégal nangu leen jox autorisation compagnie yooyu parce que tey dañoo tëj seen frontière pour ñoo ñu mën a def rotation pour nit ñi bañ a dem parce que nit ñi aussi sonn nañu am na ñoo xam ni perte nañ seen liggéey am na ñoo xam ni seen këyit dafa jeex am na ñoo xam ni dañu am ay rendez-vous ay rendez-vous faju mënuñoo xes ba dem parce que mënuñoo faju fii Sénégal yooyu yëpp lu ñu war a xoolaat la aussi hein d' accord léegi léegi euh, ñu ñëw ci euh, ñi bloqué wu xamante ni ñoom bëgg nañoo ñëw ci Sénégal euh, ñi nekk Maroc ak ñi nekk Mauritanie xam nga tey Boubacar bu dee sénégalais yi nga xamante ni ñoo bloqué biir Sénégal. Mhm. bu dee ñu bloqué biir Sénégal. Mhm. peut-être tey ñooñu mën nañoo wax ne seen famille seen famille ma ngi fi mais seen conséquence rek mën nañu ñàkk seen métier te lu grave la. mais sénégalais yi nekk Maroc. te leer na leen tey bu ñu fa indi woon ay manifestation wala ay ñol-ñol police. marocain bi mën naa dal ci seen kaw léegi ñooñu euh, yan lan nga si mën a leeral. mais mais ñooñu actuellement ni ma lay wax nii euh, police mu ngi leen tiim seen auto parce que ñoom dañuy waxoon ni keroog le 9 bi passé dañoo joxoon ultimatum ni suñu leen bàyyiwul ñu génn ñoom dañuy forcer il a fallu que ci guddi ñu waxtaan ak ñoom ba. dalal leen ba dalal leen parce que loolu du solution. parce que l' armée dafa déployé woon ay ay ay ay nit ñu génn foofu le lendemain sax yaa a eu des tensions. et des tensions ñun nag li ñuy bañ effectivement dara turu fa parce que démb daf ma wax ni ñun sonn nañ sonn koo xam ni euh, suñu dund gi dee moo ko gën effectivement ñii yoretuñu xaalis dañu nekk dans une situation d'extrême urgence précarité bu metti ñii yoretuñu lekk ñii yoretuñu fu dëkk lu ma deux personnes kon nag je crois que l'État du Sénégal li mu war a def jóg léegi dem encadre leen parce que il faut que l'État wax avec les autorités marocaines wax avec les autorités mauritaniennes encadrer le rapatriement ba ñu egg Sénégal ñu jël matuwaay wi ci ba en temps de Covid ñoo xam les mesures d'hygiène les règles sanitaires yi nga xam ne tey moom la ñu teg ñu jël ko mais nañ leen jëli indi leen parce que juridiquement kenn mënu leen tere ñu ñibbi seen dëkk surtout que dañu nekk en situation euh, de détresse loolu laay profité encore ñaanaat l' état du Sénégal je m'adresse directement au président de la ay doomu Sénégal yoo xam ni dañoo amoon ci moom ci ñoom yaakaar kenn kenn ki daf ma ni grand man Macky Sall laa woteloon mais vraiment am naa lu ma métti kon ay nit ñu yaakaaroon ci moom ñoo nekk tey en situation d'extrême urgence euh, Maroc ak faneen ci àddina bi du ñaan ñu jàppale leen ñu indi leen Sénégal parce que sonn nañu balaa bala balaa njaaxuma am parce que situation boobu suñ ko bàyyee rek. dina fi jur loo xam ni te kenn du nag waxoon waxuñu ko woon ba démb sa rajo bi traité nañ ko. avant yéen traité nañ ko fu nekk te mbir mbaa ngi bëgg yàgg see depuis le 11 mars ñu ngi bloqué foofu ay boroom kër nee nañ marchandise yu ñu yor woon yàqu na yoretuñu xaalis dañuy dem ba nga xam ni ñii seen oto yi lañuy fanaan te loolu wax dëgg yàlla dama jàpp ni euh, l'état du Sénégal warul tànqam lu lool kon j'en profit ci sa émission bi pour tirer la sonnette d'alarme président de la République dem jëli leen ñu ñëw indi leen fii Sénégal. bu ñu fi egsee nag ñu xool yan mesure la ñu jël mais ñooñu soxla ku leen taxaw balaa jaaxum di am. d' accord jërëjëf euh, Boubacar Seye Horizon Sans Frontières euh, mbokk yéen a ngi déglu rajo Réew mi FM seen émission pencum réew mii mu doon wax ci doomu réewum senegalee euh, Sénégal yi nga xam ne ñoo bloqué Mauritanie ak Maroc di dund ay jafe-jafe waaye tamit fii ci réew mii di Sénégal réew mi ñuy waxee am na ay doomu réewum euh, Sénégal yoo xam ne dañu fee bloqué. Mm-hmm. ndax Europe la ñuy liggéeyee Europe la ñenn ñi la Europe la seen njaboot nekk. Mm-hmm. Euh, tey boo mënul dem foofu. Euh, dañu lay dàq. Mm-hmm. te gis nañ tey ay vol ay vol spéciaux yoo xamante ni ñoo ngi France di ñëw fii nga xamante ni maanaam moo mooy moom léegi Sénégal léegi. Boubacar Seye ñu wax ci ba tey sénégalais yi nga xamante ni tey ñoo nekk bitim réew. ci réew yu baree baree bare. ndax tey maa ngi lire rek benn journal buy wax ne sénégalais yu bari yónneetuñu xaalis ndax ay jafe-jafe. Mm-hmm. état bu Sénégal nag man dama déggoon ñu ne jël na douze milliards. Mm-hmm. pour jàppale ko sénégalais yi nekk bitim réew. Mm-hmm. mais am na ci ay réew yoo xamante ni gisuñu xaalis boobu noonu. yow nag en tant que koo xamante ni tey euh, bokk nga si seeni défenseur yan information nga si am. Oh, waaw waaw waaw balaa balaa may dellu ci question bi je rebondis encore si ñu bloqué wu. Euh, Mauritanie aussi parce que waa Mauritanie nekk nañ ci ay situation yu métti wax nañ ko sax ci njëlbeen bi mais j'en profite mhm. waaw pour pour boole leen ci aussi waaw waa Mauritanie dañu laaj ndimbal te Mauritanie sorewul que état bi tamit jóg dem jëli leen parce que am na ci ñoo xam ni sonn nañ ñii dañu bàyyi fii njaboot bàyyi fi ay xale maintenant par rapport à l'aide bi nga xam ni moom la gouvernement bi tegoon comme mesure d'urgence jëmale ko ci diaspora bi euh, man damay wax ni d'abord dama koy rafetlu parce que aide boobu dafa dafa nekkoon loo xam ni dañ ko soxla woon gisoo sax feeñ na ci image yi nga gis ñaata sénégal yi ñoo dem assiégé ambassade yi di laaj seen aide wala di laaj man ñaata nit ñoo may woo di wut information ci aide bi mais ñu ci bëri maa ñoom a ci yem parce que biñ koy def tamit kenn boolewuñ ci looloo tax tey coow li bëri. looloo tax aussi bi aide bi commencé amoon na ñu ne kenn soxlawuñ ko man leen déedéet bu leen wax soxlawuñ ko soxlawuma ko moo gën. soxlawuñ ko parce que am na ñu ko soxla pour preuve tey ñëpp a ngi laajte ñun ñëpp ñoo ko soxla euh, aide bi nag indi na coow boo xoolee man écho yi ma ci am gis nga yaa a président présidents d'association yu nekk Belgique waa faneen ñu ci bëri ñii yónnee nañ ma ay bataaxal ñii wax nañ ma coow li ci nekk fële dañ koo politiser ay politiciens yi ñoo ko séddoo fële ñi ko waroon jot jotuñu ko donc ci gàttal daal xaalis bi indi na coow donc am na dëkk yoo xam ni tamit amul benn problème mais am na dëkk yoo xam ni am na problème kon mooy encadrement bi xaalis bi waroon am pour ñi ko soxla ñi ko yelloon ñu jot ko encadrement boobu amul te lii lañ ci doon bañ. loolu moo tax dès le début il fallait redéfinir les critères. lan boole si. ah ñoom ngeen koy laaj parce que man généralement duñ ma faral di boole sur ces trucs là. lu waral loolu. ah waaw xëy na ñoom ñoo xam-xam nga man aussi. mais yow loo jàpp yow ne moo waral yow. mais man hmm, jàpp ma dara xëy na ñun ñun li ñuy wax arrangé wu leen parce que en réalité wax dafa am ñaar da ngay wax pour am looy wut wala nga wax pour neex ki fi nekk ñun doxuñu fi loolu loolu indiwu ma fi wala ngay wax pour wut dara parce que ba may wax xaw ma ku may déglu te lii may dossier bi sama bopp laa nee naa sama bopp laa njëkk a ba ma amee 22 ans laa génn ci fii ci dëkk bi. samay rakk ngi ci àll bi samay a ngi ci àll bi ak ñeneen ak ñeneen kon sama bopp laa njëkk défendre te du défense boo xam ne tamit dañ ma cee fay un franc uh-huh. kenn joxuma ci dara fayekuñ dara amul kenn ku musa a financé li ñuy dox nii suñu allal lañ ci def dem ci mu jaral ñu lu nekk. Uh-huh. Euh, wax nag comme ni mu ko waxee da ngay wax pour ñaar wax ki fi nekk loolu man doxuma ci yooyu. Uh-huh. li ñu guidé mooy l'éthique l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. un dossier nag politique. dangay wax li fi nekk pour am li nga bëgg ñu la ciy boole xëy na su ma meloon ni ñeneen ñi kon tey maa nga fa sori wala maa ngi fa ñuy séddalee waaye àddina jaraluma ko loolu moo tax nga ñëw fii ci man wax nga ko Fat Thiam wax na ko avant may ñëw te ba ma koy wax fekkoo ma ko te mënoon naa wax leneen te ñu ngi bëgg yàgg ci dëkk bi tamit daf nañ fi sept ans y a une constance dans ce que nous disons xam nga lu ñu wax nañu taxaw doomu sénégalais yi nekk bitim réew parce que ñoo ñooy Sénégal migration bi suñ ko organisé Sénégal soxlaatul di lebati xaalis parce que li ñuy dugal ci dëkk bi mën naa tabax réew mi nañu impliqué doomu sénégalais yi nekk ci bitim réew dans le processus socio-économique il faut en faire une composante organique lii rek la ñu wax et pour preuve bi vol yi passé ay doomu sénégalais négocié nañ ba am ay compagnie kenn jàppalewu leen kon ñooñu li ñu mën a indi ci réew mi bëri na gis nga dëkk bi amul sax ndox soo ñu bàyyi woon léegi ñun tey horizon dinañ fi indi compagnie boo xam ne ndox dootul ñàkk ci réew mi mais pourquoi cette gestion clanique clientéliste et partisan ku ci bokkul bokkoo ci Sénégal waruñu koo mën a doxalee noonu. toll nañ foo xam ne ci réew mi expertise moo ko mën a yore ragal yàlla gëm yàlla le tout dans une justice sociale loolu moo tax à travers votre émission maa ngi maa ngi maa invité le président de la République à un Sénégal post coronavirus. je crois que il faut il faut. c'est-à-dire post coronavirus. waaw mais coronavirus bi li mu wane tey ak comme faay bëri na dans le domaine de la santé tey. am na ay faa yu génn gisoo ci feebar bi chaque jour bu amee des cas graves y un problème dans la prise en charge parce que infrastructure yi ñu waroon am moo des moo tax ñuy ñaax la chef de l'État su li passé Sénégal war naa am ñaari ministre ministère Euh, de la santé benn pour ay infrastructure kooku day tabax kenn waratul jógee Kaolack di fajoo ci Sénégal beneen bi pour soins recherche parce que am nañu tout ce qu'il faut loolu yooyu c'est des réflexions tey war naa mën a pousser la grille de réflexion sur des stratégies pour mettre sur pied un Sénégal post-corona parce que après addina bi mooy jaxasoo France boppam lay tal keneen boppam lay tal il faut pas que Sénégal di compter ci ay institution wala ay leb xaalis wala ñuy annuler bor pour mën a dem doomu réew mi ni yow ni keneen ak keneen ñooy tabax Sénégal il faudrait mettre tout le monde dans une dynamique de travail il faudrait créer une révolution épistémologique socioculturelle pour que nga xam yaay xam Sénégal ñun ñoo ko mën a tabax mais noonu ay institution ñun loolu lañ koy poussé mais nag li koy lal liggéey da nga koy jox ki ko mën mooy expertise nga bañ a xeeb kenn Sénégal yaa tout mais gars yi dañu yàq Sénégal gis nga tey scandale yi fi nekk ndox sax amul ci dëkk bi nan la ñu mën a xeexee coronavirus te ndox amu fi te ñu wax des mesures sanitaires donc il y a problème il y a un problème nañu xoolaat loolu yëpp. d'accord Boubacar Seye euh, danañu si ñëw ci jeexital yi nga xamante ni euh, am na ci mais ñu des tuuti rek bitim mm-hmm. réew ci sénégalais yi nga xam ne. ñoo nekk euh, bitim réew xam nga coronavirus bi. est-ce que mm-hmm. jàppoon ne dina am ay jeexital yu metti ci seen wàllum wér gi euh, ci seen wàllum liggéey ak ndax jàpp nga ne sénégal yu bari yu amatul kayit danañu leen defal kayit yow lan ma sa combat ci loolu ci wàllu liggéey moom loolu commencé na. parce que y a un y une récession mondiale boo demee dëkk yu mel ni Espagne yooyu dans la construction yooyu yëpp gis nga gis nga taux bi nu mu wàccee donc euh, sur le plan économique effectivement mais dëkk yooyu dañuy dinañu liggéey. parce que ñoom gisoo xeex nañ ba génn si l'Europe n'est plus l'épicentre de la maladie fii moo des Afrique mais doomu sénégalais yi nekk foofu effectivement le coronavirus dafa indi de des conséquences sur le plan économique. Mmh. mooy li nga wax léegi ñaata ñaata nit ñoo fi perte seen i liggéey loolu dina bëri dafay feeñ ci li ñuy yónnee Sénégal. Mmh. ba tax na tey. est-ce que tamit sama ay entreprises françaises yoo xamante ni dañuy dañuy wàññi effectif bi. ah mais loolu commencé na ñaata entreprise ñoo déposé le bilan ñaata entreprise ñoo commencé ni y Euh, tel tel emploi ñuy perdre d'ici tel loolu commencé na moo tax loolu moo tax Sénégal war a gën a mën a taxaw ay doomam parce que après ñu ci bëri dina ñàkk seen kayit après ñu ci bëri dina sonn moo tax il faut que mu tegaat une nouvelle politique migratoire euh, une nouvelle cartographie de la diplomatie sénégalaise avec de nouvelles juridictions loolu su ko deful day indi problème loolu la yeneen dëkk yi def Chine ak Inde dañu organiser seen diaspora donc ñun loolu la ñuy ñaan ci réewu Sénégal mu bàyyi. Euh, cette politique politicienne dans la diaspora di diviser na jël la diaspora ay kàngam a ngi ci su leen déglu woon kon li am tey ci ci ci xaalis bi du ci am ak yeneen a yeneen ñu ñëw ñu loolu rek la horizon sans frontière moo tax pour répondre à ta ñu ci boole parce que bokkuñu vision bokkuñu vision nous n'avons pas la vision la même vision stratégique en ce qui concerne la gestion des migrations internationales donc loolu nag euh, dafa feeñaat wax nga sànq borom kayit yi ñaata nit ñoo amul kayit il y trois mois dama ni euh, le président de la République na na diriger euh, benn leadership africain pour doomu Afrique yi nga xam ni amuñu kayit Europe ñu fexe ba ci xeex bi ak feebar bi ñu régulariser leen pour des raisons humanitaires et sanitaires. d'accord. pour les protéger. d'accord jërëjëf euh, mbokk yéen a ngi déglu rajo Rewmi FM seen émission pencum réew mu ñu invité Boubacar Seye bi jiite Horizon Sans Frontières. Euh, ñu wax tamit tuuti rek ci sénégalais yi nga xamante ni tey ay doomu réew mi lañ nekk ay moodu moodu euh, lu jëm ci wàllum stigmatisation bi nga xamante ni euh, amoon na ci. Mm-hmm. yow noo ko dundee woon peut-être léegi gis nañu sax jeex na. waaw mais loolu erreur bu mag la loolu c'est une erreur stratégique depuis le début parce que gouvernement bi dafa jëlul woon ay matuwaayam parce que bi feebar bi commencé on a alerté toute l'Afrique ni leen feebar bi ci tànku migration lay dox. principal le principal vecteur de propagation mooy la mobilité la migration du fait de la mobilité Chine nekkoon ñaata feebre bi foofu la juddu woon. Mm-hmm. un milliard cent cinquante de ñu tas ci àddina bi. l' Afrique nekk un terre de mobilité le Sénégal nekk un laboratoire de mixité et de migration pétrole ak gaz bi génn fii dafa daf. kon yow leeroon na leen dina ñëw Sénégal. non ça c' était gisoo keroog bi. bi ñu déclaré premier cas boo xoolee am na rajo yu bëri man maa nekkoon seen invité principal parce que waxoon nañ leen ko mais Sénégal dafa jëlul woon des dispositifs sécuritaires matuwaay au niveau des frontières foofu la amoon faay ah. soo leen waxee loolu moo indi lii tey léegi nag non bàyyi ma toon ci stigmatisation bi ñu commencé dans leur mode de communication cas importé la mooy cas importé cette maladie elle est importée ñu jiiñ immigré yi loolooy erreur immigré yi leneen lañ soxla woon lu dul ñu leen di jiiñ ci temps dem rek parce que ñooñu ñooñu waroon nañ leen gën a mën a dëfal parce que ñaata immigré ñoo ci pet seen bakkan jiiñ boobu tax na ba ñu bëri ñi faatu ci feebar bi euh, euh, euh, feebar bi pratiquement soo demee États-Unis ñu ci bëri seen kër la leen reyee parce que le Sénégal a créé une stigmatisation ci ay doomam loolu loolu loolu rafetul tey jii ñu tëjoon frontières yi ñu ñu changé type de communication ay cas communautaire cas cas rek la cas lii cas laa dans quelques jours di nga dégg cas scolaire. léegi dinañ ubbiwaat frontières yi nga déggaat cas bi ñëwaat parce que. cas AIBD fan yii cas AIBD. voilà y' a eu y' a la stratégie n'est pas baaxul woon nañu xoolaat le ma du communication. mais mais mais yow euh, Boubacar Seye euh, xam nga tey par exemple tey euh, yow xam nga walla man ngaa estimer ñaata sénégalais ñoo nekk Europe xam nga tey Europe mm-hmm. réew moo man di dem. Mm-hmm. da fay fekk. ay doomu réewum Sénégal te yow léegi feebar bi li nga wax ne mobilité la maanaam déplacement. Ah. kon yow leeroon na la ne ak millions yi sénégalais yi nga xamante ni dañoo nekk ci bitim réew te war a ñëw ci réew mi jàpp nga ne bu ñu tëjul frontière yi jàngoro ji moom. Sénégal mënu ci woon a mucc. parce ñu nekk la Sénégal c'est un le Sénégal est un pays ambulant Sénégal yaa ngi fu nekk. Sénégal mënul woon ci woon mucc à l'instar des autres pays cest à di que il fale nga jël ay matuwaay. Mm-hmm. mais xoolal situation bi ñu nekk nii. le nombre de morts augmente, le nombre de décès augmente, le nombre d'infectés augmente. Dakar est infecté. Il y a problème. xëy na du ñu nangoo wax lépp mais suñu yàlla dimbaliwul du baax. Ah moo tax nañu ah oui oui il fallait voir les c'est-à-dire que ni ñu xeexee feebar bi la moo baaxul stratégie bi la moo baaxul euh, il fallait des solutions endogènes. il fallait ñu tenir compte ci ministère bi la wala dañ ci boolewul ci xeex bi ñëpp. non dañu ci boolewul ñëpp. bi affaire bi commencé xam nga lu ñu leen wax dañ leen ni. teg leen un comité national de pilotage de gestion de cette crise là ñu tënk ko ci planification modélisation et d' analyse systématique un comité acteur ngeen boole ci ñëpp. xam nga tey xoolal yi am Sénégal stigmatisation entre ñi biir Sénégalais yi néew su amee ñu ne duñ ko fi suul foofu sociologue yi amoon nañ fa place nous avons nos réalités anthropologiques sociologiques. pour toog waxtaan ak nit ñi. moo tax le volet éducatif et volet explicatif ci ci feebar bi dafa des. parce que feebar bi jombul kenn. feebar bi joomul kenn ba ba ku mu dal ñu bëgg la stigma mais est-ce que si woon a dugal ñoo xamante ni tey bu ñu waxee askan wi déglu leen amaana tey yow Boubacar Seye yow yàgg nga xeexal euh, diaspora bi mais tey Boubacar Seye yow booy wax sénégalais yi nekk bitim réew danañu la déglu danañu la gëm mais suñu autorités yi politique yi ñoom bu ñu waxee dëgg sax ñu bari ci askan dañuy jàpp ne du dëgg ndax li ñu tàmmal moo tax kuréel bii ngay wax ni est-ce que nekkutoon stratégie bi gën boole si ñëpp. mais mais justement mais moo tax dafa am des failles loolu moo tax tey il y a un échec nous on prend acte ñoom ñooy diriger ñun waxuñu lu dul ni leen ah ñun de suñ sañoon ngeen defee ko nii ci njëkk ak ci teraanga parce que ñun duñ man du ma politicien du ma xeex du ma xuloo du ma saaga mais réew mi ci laa dëkk. su réew mi su réew mi suuxee ci ñiy suux ci la bokk kon lépp loo xam ne rek ñun dañ koy wax pour rafet nañ ko wax. kon da nga jàpp ne lajjite la. waaw mais lajj am na. échec mais échec total mais la preuve en est que tey ñëpp a jaaxle xëy na ñoom waxuñu lépp mais gisoo ñoom seen biir sax y a des problèmes dans la gestion de ce Covid là donc tey. je crois que il est temps nous changer de stratégie gis nga tey ñaata infecté moo am le nombre de morts augmente Dakar il faut prendre des mesures à Dakar il faut que ñu il n'est pas encore trop tard mais il faut que ñu xoolaat c'est-à-dire que le mode de gestion les solutions yooyu yëpp il faut que ñu xoolaat il fallait même damay wax ni sax il fallait tropicaliser la lutte contre le corona mais moo gën ngay jël li France di def ñu ngi ubbi école yi man d'accord ma ci. ah, ah parce que attendez au moment où au moment où le nombre d'augmenté le nombre d'infectés augmente. le nombre de morts augmente nga ni da ngay ubbi école yi. man je pense que il faut sauver sauver des vies moo ma gënal sauver l'école parce que l'école ça peut se rattraper la vie kon nañu xoolaat ces décisions là parce que après ils vont parler de cas scolaire il y aura une multiplication des cas. Ah, mais mais mais mais bu ko Boubacar Seye ni ñu doon stigmatiser Modou Modou yi fi ne nii jàngalekat yi noonu la leen def. parce que approche bi moo baaxul. daal bi ñu tëjee ba xam ni Modou Modou amatul tëj nañ frontière yi léegi entre ñun Sénégalais yi la moo tax waxoon leen ko approche bi moo baaxul parce que après bi ñu tëjee c'est entre les Sénégalais. Mhm. donc il faudrait revoir tout cela. Il y a des failles dans la gestion de ce Covid-là. Mmh. Mais nous, nous sommes en train de. de... C'est-à-dire que nous, on prend d'acte. Mais après, il y aura des rapports, dinañu wax aussi. Parce que dëkk bi aussi, euh, ñun ñëpp ñoo ko bokk. C'est-à-dire que il faut pas mettre ce pays-là entre les mains des politiciens. ñu séddoo dëkk bi daf lu leen neex. Euh, Boubacar Seye euh, xam nga tamit comme li nga wax sànq ci école bi bëri na ay syndicats yoo xamante ni ñoom d'accorduñ ci ci cinq juin. am na ñoo xamante ni nag dañuy tuumaal Macky Sall sax na ko lu Macron wax rek wala lu Macron jël décision bu nekk Macky Sall euh, Macky Sall jël ko léegi yow euh, lan moo ci sax xalaat ci oyofal gi nga xamante ni état bu Sénégal woyofal na ko ci ay mesures yu mu jëloon. ci jamono joo xamante ni wopp ji dafay gën a law ci réew mi. xam nga man li may wax set euh, feebar bi dafa am des enjeux politique il faut pas que Sénégal mu jouer le rol de ces lobbies là. des organisations comme l'organisation mondial de la santé ñooñu dañoo yëpp askan wi. rawatina nag africain yi. noo déggoo li ma la wax feebaree amee. Mhm. soo xoolee man maa njëkk taxaw fii ni ñu ngi ci pandémie xam nga lan mooy pandémie ñu dafa am benn thématique bu tudd migration et pandémie ñun dañ ci liggéey depuis des at depuis problème sida la circulation transfrontière parce que tey mobilité bi moo indi feebar yëpp ci àddina bi. Mhm. mooy moo mooy vecteur feebar yëpp. contexte mondial bi waaw mais li tax li tax boobu non mais ils font le jeu de la Chine ils font l'OMS n'a plus sa raison d'être nee naa la man maa taxaw fii mais élèves ces médecins là qui se lu tax keroog bi ñu waree wax pandémie ñoom waxuñu pandémie déglu les RFM matin bu 3 mars. man maa ni leen li tax nangu ñoo wax pandémie deux semaines après lañ d'accord ci ñu wax pandémie donc y a un problème xoolal OMS nu muy tiñale su ko neexee tey mu ne Afrique parce que il faut pas que Sénégal nag muy yolomal parce que dañoo am. des question de morosité économique parce que dañu war a justifier leur performance économique ba ba ba indi fi njaaxum la aussi c'est une erreur stratégique c'est une démarche suicidaire Sénégal dafa war a taxaw taxawaat jëlaat en main ce dossier la pour mën a xeex feebar bi fii ci dëkk bi maintenant dans une autre démarche dans une démarche inclusive wax nañu état ah mais ñoom ñoo ko xam mais ñoom su fekkee de dama lay wax la nañu def attention pour ne pas jouer le le, de l'OMS et de la France parce que dëkk yu mel ni France ñoom après dañ ciy génn parce que l'Europe européens yi yebuñu seen askan. maintenant France dafa mooy dëkk boo xam ni dafa soxla Sénégal parce que euh, pétrole a ngi fi gaz a ngi fi il faut pas que le Covid ba après mu nekk un instrument de politique internationale dañuy dimbali africains yi comme ni ñu ko defee ci ci ci ci ci terrorisme alors que ñoom seen dëkk mënuñoo régler problème bi fa nekk nañu bàyyi africains yi régler seen problème dama wax ni le Sénégal c'est un grand pays la. Sénégal dëkk bu mag la décision bu ñu fi war a jëriñ dañ ko war a xoolaat parce que dafay impacter sur tout le continent. kon nañu def attention Sénégal dafa war a retirer boppam ci l'organisation mondiale de la santé wax naa sànq nii au Sénégal. lépp Amérique def. mais bien sûr mais l'organisation mondiale de la santé ay lobby ñoo fi nekk des lobby pharmaceutiques des lobby ci des lobby lu ñu fexe ñoom seen business la ñu wër seen organisation la comme yow rek comme ñun état gisoo ñoom li ñuy waxee pour am xaalis la Afrique dina bëri dina am ay cas pour laaj xaalis. léegi dañuy wut ay complices en Afrique. dañuy business. mais dañuy business c'est du business dañuy wut ay complices en Afrique pour ñooñu tam ñu jox leen seen wàll non non il faut arrêter. le Sénégal c'est un grand pays. nous avons nous avons tout ce qu'il faut j'en profite pour pour saluer encore les efforts produits par yenn yenn yenn euh, le corps médical. mais il faut les il faut les impliquer tous. il faut les impliquer tous gis nga tey tey tey l'apanage mu ngi ci institut Pasteur am na ñeneen ñu fi nekk ay doomu Sénégal il faut ñooñu nga boole leen ci xeex bi parce que boo nee yow dangay ngay guerre quand en guerre ñëpp nga jël guerre moom sa ñëpp nga jël tey au Sénégal waroon na am des ateliers de de de de mise à niveau des ateliers ci Covid bi parce que virus bi kenn maîtrisé ko ba léegi. tey wa le débat était devrait être sur ça les étudiants yi nga nekk dañu nekk en fin de carrière ñoom ñëpp nga jël leen. tey teg des ateliers de renforcement de capacité. sur le sur le virus euh, mais Boubacar Seye li ñu nemmeeku mooy sénégalais yi boo dee xool presque mesure barrière yi ñu doon jël yëpp que dañ ko bàyyi. waaw parce que parce que tout simplement. Euh, le volet éducatif et communication bi ci waroon moo am faay xam nga feebar bi mu amee wax naa leen ko. mais am mais nee am na faay. mais est-ce que faay boobu mën nañu ko jubbanti. mais bien sûr lépp nee naa leen deux éléments sont essentiels pour xeex feebar bi la discipline et la responsabilité. l' aspect communication bi ci waroon gis nga bu bu bu campagne électorale ñëwee gis nga ni ñuy communiquer yàq ci ay milliards suñ ko defoon ci feebar bi. Mhm. ñu bëri na xam nee naa la la solution est est xoolal tey am na loo xam ni Sénégal réglé nañ ko par le verbe xam nga nuyoo nee nañ bu leen joxante loxo Sénégal mais attends yow su ma lay nuyu noo sant sekk. Mhm. nu ma lay nuyoo sekk nga di ma sëy. Mhm. c' est façon de parler jox ma la loxo. du dëgg. donc la solution e est endogène faut tropicaliser la lutte contre cette maladie tax na tey li desoon. mooy nag tout simplement la communication foofu la amoon faay il faut que yow Abdou Khadre nga xam ni yow kat si sa si sa santé la sa santé njaboot dépendre quartier ba nga dëkk say gox say doom de sa santé dépend la santé des autres boobaa nga aar sa bopp aar ñenee ñi. waaw mais mais Boubacar Seye tamit euh, est-ce que tamit du Sénégal fi mu ne nii Sénégal euh, gëmmut ay bëtam rek tëkkul ay bëtam rek nekk ci ginnaaw OMS organisation mondiale de la santé ba luñ ko wax rek. mu def ko sans xalaat. mais loolu Sénégal Sénégal man su ma bokkoon ci ñi décider Sénégal bu subaa mu génn OMS OMS ay njaaxum rek lay indi ci Afrique c'est des lobbies c'est le monde des lobbies c'est le monde des lobbies nous nous sommes équidistants de tout la wax naa la ni Sénégal war naa mën a teg. deux ministères la recherche. ñi fi nekk commencé di gëstu nous avons tout gis nga feebar bi li koy faj mu ngi fii ci dëkk bi. d'accord mais mais yaa jàpp nga ne euh, feebar bi moom am na mais OMS li ñuy wax lépp est-ce que li ñuy wax lépp dëgg la aussi. OMS ndéggoo li ma la wax OMS gëwuma dara ci li ñuy wax. OMS bu teyee mu wax li bu subaa mu delluwaat ci lële l'OMS ay lobby ñoo koy diriger di ko jëmloo fu mu bëgg a jëm ak li mu bëgg a wax. dinañ fexe ba créer une pandémie en Afrique parce que Afrique l'Afrique fait l'objet de de beaucoup de convoitises nañu def attention sur ces organisations yu demee noonu. doomu Afrique moo mën a aar Afrique moo mën a taxaw Afrique loolu nañ ci bàyyi xel. moo tax tey il faut des stratégies euh, euh, panafricaines pour jéem a euh, faire face aux défis yi nga xam ni tey après. dafay nekk des défis post coronavirus sinon rek ñu ñëpp dañuy suuf. d'accord euh, Boubacar Seye yaa jiite Horizon Sans Frontières dafa am benn mhm. bu tudd euh, IADA kuréel googu ay ONG ay kuréel yu baree baree baree bare ñoo si nekk euh, ngir xeex ci Afrique ngir ñu baal. africains yi seen bor bi ngir jafe-jafe yi nga xamante ne am nañ ko ci coronavirus Horizon Sans Frontières gisuñu ko ci mbootaayu googu lan moo ko waral. non man du dugg ci xam nga. ñun Horizon sans frontières damay rappeler c'est une organisation boo xam ni euh, nous sommes équidistants c'est une organisation apolitique équidistant des lobbies hein képp koo xam ni lobby nga ab groupe de pression la ñun doxuñu ci loolu parce que kenn duñu wax loolu li ñuy war a wax euh, ñun dañu wax ni politique euh, kaay ma wax la boo demee ba ci biir boo gësoo di nga gis yeneen ci biir man dugguma ci loolu parce que du du xam nga lu ma dul d'accord tey euh, ñuy xeex euh, naan nañ ñu. nañ ñu nañ ñu baal bor. pour man position boobu position bu ñu war a xoolaat la parce que ku la warul yëpp ci loolu la yëpp na Afrique liggéey ba nga xam ñu bor dama la wax ni des institutions tam la Banque mondiale le Fonds monétaire international ñooñu musuñoo musuñoo développé réew doomu réew mooy tabax réew. le rattrapage pour le rattrapage économique et possible en Afrique mais ak condition que ay doomu africain daf cette prise de conscience la xam ni ñooy tabax seen réew créer une révolution épistémologique xam seen bopp dugg dans une dynamique de travail liggéey mais fay lépp ay ay bor nañu ko baal moom loolu pour man c'est pas une posture boo xam ni tey Afrique waroon na taxaw sax di wax loolu ñun bokkuñu si loolu te mënoon ñu see gis te bokkuñu tam ci benn lobby xam nga ñun la ñu wax l'Afrique aux Africains moo tax d'accord ma ci ay sommet Europe Afrique sommet Chine Afrique dara lu dul seen intérêt les les états ont des intérêts géopolitiques et économique ñëw jël li fi nekk Afrique am na lépp nous avons tout mais pourquoi compter si ñeneen pour ñu doxalal la sa réew tey les défis sont grands pour l'ère post-coronavirus parce que après dëkk bi day gën a metti il faut régler les problèmes de l'immigration le problème du chômage il faut régler le problème de la santé l'insuffisance alimentaire fexe ba ñëpp lekk un développement euh, boo xam ni c'est un développement local et non un développement importé parce que tey am na ñu suuf am nañu ndox am nañu ngelaw am nañu naaj kenn waratul xaar kenn waratul xaar mu taw pour mu bay jërëjëf euh, Boubacar euh, suñu mujjantalu euh, question mooy yow gis nañ ne da nga jiite benn kuréel Horizon Sans Frontières muy kuréel boo xamante ni bu engagé wu la est-ce que tey jotul Boubacar Seye fexe dem assemblée national fexe bokk ci kuréel ba nekk koo xamante ne dana nekk député boo xam ne dana kaasal askan bi ci biir réew mi waaye rawatina diaspora bi est-ce que loolu yaa ngi si xalaat. waaw mais xam nga ñun tey boo xoolee suñu waxantee dëgg rek. avec beaucoup de modestie nag laa koy wax. tey les problématiques liées au Sénégal de l'extérieur il a fallu que Horizon Sans Frontières ñëw fi pour ñu mën ci mën a bàyyi xel mais ñëwuñu pour wër parce que bi député yi ñëwee ñun ñoo fi njëkk ñun ci bàyyi ñu xel sax moo tax tey ñu teg des députés de la diaspora mais man duma d'accord une instrumentalisation politique des députés de la diaspora moo tax gisoo bi mbir mi amee ak euh, Dakaractu dafa jël sama photo teg assemblée. ni su doon benn député buy am sax Boubacar Seye mais loolu man amul lu ma ci dajul ci diaspora bi am na ñoo xam ne bi ñu déggee loolu parce que nit ñi dafa am lu ñuy wër man li ñuy wër man su ma ko bëggoon am naa ko. lu nit ñi di wër. non ay nit ñi. parce que moo leen tax a jóg waa diaspora ñu bëri non ñu bëri nañ diaspora bi ñu bëri rafet la ñun li ñuy liggéey mais ñi nga xam ne dañuy politique ànd ak nguur gi Boubacar mooy seen problème mais man du ma saaga ku ma saaga baal naa la du ma politicien du ma contre Macky moo fi nekk gis nga suma ma sañoon day réussir son son son mandat là pour le bien di Sénégal parce que contre Macky Sall ma ko parce que loolu erreur la su ma sañoon day woo ñi nga xam ne ay lañ ci diaspora bi boolee diaspora bi dans ce dossier bañ ko instrumentaliser mu nekk njariñu Sénégal. mais c'est un dossier politique ba nga xam ni boo xoolee ñi ko yore dañ ko instrumentaliser ba nga xam ni ils ont mis ils ont mis toute la loolu il faut enlever ça. d'accord ñun ñëpp Sénégal moo ñu ñor. Euh, nañu ànd liggéey Sénégal migration moo yore Sénégal moo yore àddina suñ ko organisé yokkute lay nekk pour réew Sénégal man loolu laa ñaax la président république jërëjëf euh, Boubacar Seye euh, yow yaa jiite Horizon Sans Frontières tey nag yow la ñu invité woon ci seen émission pencum réew mi ci rajo réew mi FM muy am samedi bu jot bu 15 jote jàpp 16h lan ngay tàggoo ci benn simili rek. waaw xanaa di leen jaajëfal ci émission bi. Euh, ci soutien aussi par rapport à la diaspora parce que wax dëgg yàlla fu problème amee ngeen taxaw ànd ak ñun di tirer la sonnette d'alarme kon ñun Horizon Sans Frontières ak diaspora bi yëpp je crois que loolu ñu ngi koy rafetlu euh, beneen bi nag euh, di fàttali rek ay doomu sénégalais tey l'urgence mooy doomu sénégalais yi bloqué wu bëgg ñibbi ñu fexe ba ñun ñibbee ñu encadré leen yombalal leen lépp aussi. ñii nga xam ne dañoo nekk Maroc bloqué wu fa ak Mauritanie nañu fexe ba ñooñu tamit ñu jàppale leen encadré leen ba ñu ñibbisee jàmm parce que ñooñu sonn nañu voilà loolu daal laa amoon daal lu may ñaaxaat ci l'urgence du moment. jërëjëf euh, Boubacar say euh, Horizon Sans Frontières mbokk yi euh, li moo nekkoon seen émission pencum réew mi ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck samedi bu jot bu ñetti waxtu jotee jàpp ñeenti waxtu aadama jàll moo nekkoon ci wàllu technique bi jërë jëf jàmm ak jàmm.